ci làmb ji nga xam ne Madakaw Fallou Diop ñoo ko organisé fii ci stade Nelson Mandela bu Mbacké ñi ngi ak bébé Balla bébé bi ñu ngi lay nuyu Balla. waaw maa ngi leen di fay naka coono yi alhamdulilah waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama sëriñ sëñ Falloum sëñ Tako Mbacké di sant sama gars yëpp xam nga ñoom Pikir Modou Pikir maa ngi leen di bégal lu bari xam nga sama teewaay ci làmb ji du dama bako si encore it wax ne pare naa xam nga pare naa bu baax a baax te it aussi tamit dafa am koo xamante ni man ak moom dafa am lu ñu war a liggéey ndax maa moom dañoo bëre fii niil ñëpp di ko fekke muy booy ñaa ñu ne moo fi teg tànk te man la fi niilal daan noiro na ñëw ñu bëre dafa ñor xom barki sëñ Bamba na ñëw ñu bëre jeex na samay supporters xoola maa ngi leen sant parce que duñ ma la découragé daanaka bis bu ne dama leen ko fi andil moo tax xam nga tey maa andi Zenga bu Malika incha allah ñuy ñaan yàlla may nu ndam euh, waaw bu sa bu ñëwee bu xeexee xam nga ñu xeex xam nga te dañ koy wàccee dañ koy duma bu fekkee ne nag maanaam dafa bëre it dañ koy daan parce que lu tax li ñu entraîné xajul si moom Zenga boo ne ko jàkk xam ne li mu entraîné xajul sax si Eumeu Eumeu xam naa ko bu baax a baax ginaaru kookali la bilaay jeex na ci kanam li ci kanam raw li moo daan mbay ndeer la wax yow tam lool du ma du ma daan rek laay waaj li ma daan def rek voilà américain la américain oui noiro waaw déglu gars yi rek déglu coach yi rek incha allah waaw lépp mën na am waaw lépp mën na am incha allah ci kàddu waa ngi ñu ngi lay delloo ziar wér. man la Noiro Seras. oui. tey maa ngi dajal ku ne wax américain. waaw di ñaan yàlla rek yàlla suñu borom ànd ak man tey. di ñaan yàlla daan ko jël bu set wecc ba mu benn werante. Ah. waaw incha allah. mën naa jeexal si lépp parce que ñun moom indi nañ lépp. Ah. indi nañ lépp waaw pare si lépp di ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam ñu sedd guy si koom incha allah. waaw si kanam lay doon incha allah. ñuy diglu ak ñuy seetaan di rafetlu lii Fallou Diop def de drapeau bi ma soxna Maam Khary Mbacké di ko xam di kenn la ci moom di yaayam di léppam ñi nag ñu sawar ñu amaat benn taxawaay bi mu taxawaat ndax Fallou Diop suñu xarit la ñu ànd nekk dëkk bi nekk ay jeunes di liggéeyal ci développement ak di liggéeyal président Macky Sall pour mu am deuxième pour mu am deuxième mandat kon donc bu ñu yónnee ñun ciy sawar. di remercier nag mbër yu bëri ndax mbëri yu Bébé Yékini mi moom kenn xam moom mooy yor sécurité bi maam Xarim Mbacke kon moo tax ñun mboolem ñu nekk Rasiat ak xale yu jigéen ñi ñoom ñoom ñaaña ah, ñoom ñëpp ak Taasim Jang ñoom ñëpp def na délégation pour ñëw fekk loolu kon boog ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci lii Fallou Diop def di ñaan jàmm ci réew mi ñi élection yi ñu dugg ci alhamdulilah génn ah, ñu génn ci bisimilah ak génn alhamdulilah rabbil alamin tey ci làmb ji nga xam ne ñu ngi ko tëgg fii nga xam ne moo di stade Nelson Mandela bu Mbacké euh, Malick ñu gis la euh, Madakawa woote woote woon nañ nga wuyu si tey ñu wootaat nga wuyu si lan moo ko waral waaw jërëjëf euh, depuis seen première édition la ñu liggéey ak man déjà ci wàllu publicité bi bi ma ñëwee également couvrir ko wane ko grand combat ñu am mbégte ci loolu ak li ma jëflante ak ñoom ren aussi ñu woowaat ma comme aw ma benn engagement ma ñëw jàppale leen parce gis naa ne ay jàmbaar la ñu ak ñi mu àndal ñu def liggéey bu am solo te lépp dafa bokk ci li nga xam ne dafay jàppale euh, jeunesse Mbàkke ak mbëru Mbàkke ndax mbëru gox bi dañuy am jafe-jafe pour bëre ji Dakar wala pour am combat donc bu ñu amee structure bu mel ni Madakaw ànd ak Yékini bu Mbàkke ñu leen di tëgal ay combat loolu dañuy sawar ci ñëw yokk euh, yokk leen visibilité jàppale leen et ñu xam ne Mbàkke ñu gën leen jàppale et beneen appel bi may lancé aussi mooy fi ñu nekk ni di stade bi donte am na woon projet mais nañ ko accéléré ndax Mbàkke mérité na am stade bu ëpp doole bi jeunesse Mbàkke mérité na loolu te luñ ci gën a gaaw gën ci taxaw mu gën a baax. noo gisee ndaw ñi ni ñuy euh, doxee jëm ci làmb. waaw loolu dafa am solo parce que làmb tey facteur de développement la buñ la waxee ni combat bii ñu signé barki Dembo Ndiaye wala démb rek diggante euh, Eumeu euh, mu nekk la revanche tey cent trente millions fay nañu Eumeu Sène cent cinquante millions loolu da lay wan ni tey lamb egg na ci niveau bu nga xam ne xale yi kenn ku ci nekk yaa ngi rêvé nekk champion te karkar mooy doon kàddu ci mbapat ngay doore ak ci combat yu mel nii ba keroog ngay egg au sommet donc euh, nañu leen a jàppale gën a jàppale mbëru Mbàkke ba Mbàkke am champion bu mag kër yi football day àggale stade bi tëj stade bi def ko kër Sëñ Tuubaa président ci tournée campagne bi wax na ko ma membre de cabinet am laa ci cabinet am a ba nga xamante li mu war a def ci mbaa yi def ko ci. waaw Fallou xam nga li may wax Fallou. waaw man recevoir naa ko sama bureau palais. waaw waaw délégation bi. xale la boo lu mu mais recevoir naa ko premier ministre recevoir na ko président xam na ko donc lii muy def am na ay leader yoo xam ne ñoo yor ndam ak tànk defuñ ko kon donc loolu moo tax ñu ñëw pour jàppale ko li may gis suñu ko lu mu nekk daal day jàppale ko te ko mais di wax seen digganteeg Siteu di wax seen digganteeg euh, ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux moo leen ci waaw non buñ sañoon nag Gris Bordeaux la ñuy jël quoi waaw Gris Bordeaux lañ bëgg a bëreel. waaw Ama Baldé Gris Bordeaux la soxla. Siteu duñ moroomam quoi ko jël. duñ ko jël. Siteu duñ ko jël non duñ ko jël Siteu buñ ko jël Siteu buñ ko jëlee Ama. Ama ndaanaan du moroomu gone yi. Ama bi màgg na. waaw kooku kon fóori la merci Malick jërëjëf

Ah, ci waaw waale ziar waaw. waaw dégg waaw lamb ji ni mu demee ñëpp gis nañ ko man Zengay ku nekk ku ma xam-xam du ma ragal man doomu tey maam Cheikh laa doomu Mbusoobe dëkk Bawol nag ma ñëw fii ay combat combat kuñ ma jox mu daw ñu bañ kuñ ma jox ñu bañ yàlla doo tey sama premier combat fii ci Bawol waaye damaa bëgg waa Bawol xam ne man Zengay fii laa dëkk Bawol te nañ xam ne man maa ngi ñëw seen kaw te su ma egsee nañ xam lépp dëgg la mafia baa ngi nii nag mafia baa ngi nii lu ma la waxoon ah, nee naa la Zenga da koy daan bu xeexee dana ko duma bu bëree daan ko da ko dafa dóor gauche moom mënul benn jam sa ne ko tël tël yaa ngi seetaan ah, taxaw mu wut si ko ne dee bëree tee ko mbot ko mbotum colo la waaw su fekkee su fekkee waaw maa ngi waa teen maam seet bi yëpp maa ngi waa Raaba waa arène Narga maa ngi gërëm waa Kër Mbaye Jabel ñëpp maa la leen di ziar maa ngi ziar koso sama kanam sama kanam ñu fi nekk bari nañ man xale laa rek dañ may diriger rek may dem stade bi rek bu ñu wax loolu la Ali sama doomu ndey la ngi dëkk Mbusoobe dafa nekk ci ay tolof tolof yàlla ko suñu borom teegi bak sëñ Tuubaa tey toute la journée woo na ma mu nekk yàlla ko yàlla ko suñu borom saafara mu tane bu baax a baax a baax mais man waa Mbusoobe waa Mbusoobe oo ma seen a Kayre su fi nekkoon ni ma waa bu soobee taxaw lañ gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp waa ma fi yaayee fitna ñëpp ziar naa rek yaa ñeme yàlla gaa di meereti meereti ah Tali Moustapha Gueye ak Balla Gaye ndeysaan lamb ju neex loolu la may fàttali ñoom ñaar kenn ku ne am na ngeen ñoom ñaar kenn ku ne am na ngeen Moustapha Gueye ca fut la ca njàmbar la daa booy na ko doom ko dàq waaye ñoom ñaar da daa amoo da daa lan la tal na ko ñun bëgg nga dàqante gi ñëw. grand combat est-ce que moom la. ñoom ñaar mais ñaari mbir yi lu ñu am dugg si. Thank you. Kasım Sikkebat Bébé Yékini da koo dëkk lamb da kaw kontaan na ci yéen Bébé Yékini promoteur bu mag bi Thank you. te lépp loo ko gis muy dox ci mission Fapal la nekk suba ngoon mu dégg ko jëkk ki nga xam ne moo di euh, Kéba bokk wan na la ñu bés bi moom la ko jox la ko bés bi ko daal kon Kéba la jeunesse de Fapal qui te dit merci donc parents de Dakar te dit merci pour la disponibilité pour la jeunesse de l'utilité et pour l'engagement sans faille auprès de votre président au maire du président de la République léegi ñoom présentation yi di champion yéen nag bëgg naa ko ngeen bëri la ñu ne bu ko ñu jëlee wax ko la li la mën a ko ñu jox mais après boo ko gisee il y a une forme de nécessaire ngeen ko demee ko nag dans la discipline dans la présentation ñaata mbir yi. voilà. ay saa yu ñu ngi ko. ay yéen a ngi ko. drapeau ñu ngi ci stade Nelson Mandela ci làmb ji nga xam ne Fallou Diop Madakawo ñu ràññee ko lool euh, jamono ji nag tey tëgg làmb ñu wuy si ko askan bi bàyyi ko fu nekk ngir ñëw fekk si nga xam ne moo di Fallou Diop Madakawo bi nag mooy deuxième édition bu nga xam ne mi ngi koy woote Fallou Diop di ku ñu ràññee lool. ah ci liggéey bi muy def tey nag bi mu wootee nit ñi wuy nañ ko moo xam ñi nekk ci réew mi waaye itam ñi nekk euh, ci diggante ci département bi waaye tam ñeneen yi nga xam ne bàyyeekoo nañ fu nekk ngir ñëw fekk si ki nga xam ne moo di Fallou Diop Madakaw ndax tey bisu tey bi ràññee nañ ci teewaayu ki nga xam ne moo di Keba Kanté Keba Kanté ku ko xam euh, di doomu Cheikh goo xam ne kenn dootu ko euh, laajtee ci Sénégal ndax liggéey goo xam ne ñu ngi ko ciy def. waaye tamit ràññee nañ fi teewaay ay kilifa yu bëri yoo xam ne daal ñëw nañ wuy si euh, ki nga xam ne nag moo di Fallou Diop Mandakao euh, làmb ji nag euh, dem nañ ci premier combat yi fi mu nii ñu ngi ci jëppaal ndaw la muy combat bu mujj bi war a dox ci ki nga xam ne nag moo di noiro ak américain arbitre sifflé na ci diggante combat noiro ak américain waaw ku ci nekk ma ngay léemu diggante noiro ak américain voilà. américain moom ngeen di gis noonu moo leen féete ci seen loxo ndijoor euh, américain ba euh, moo féete ci loxo càmmoñ ngeen baal ma noiro moo féete ci loxo ndijoor ñaari mbër ya ña nga ca digg géew ba ñaari mbër ya ña ngay lewaatoo ci diggante américain ak euh, noiro seen diggante na soreetul ña ngay dox nag wuti ca saako ya diggante ki nga xam ne nag moo di noiro ak américain léegi tey ñu egg ca saako ya nag waaw ña ngay doxee wet comme niñ koy waxee ñaari mbër yaa ngay doxee wet ci diggante américain ak ki nga xam ne nag moom moo di noiro euh, ndax lamb ji ci caxabal lay lay jeexee ndax ci songo lay jeexee ndax ci bëre lay jeexee ndax dóor mu daanu lay doon ak lu mën di xew loolee ci kanam tuuti rek dinañ ci am lu leer ci làmb ji dox ci diggante noiro ak américain nekk grand combat bi euh, Madakawo euh, lamb jaa ngi noonu làmb ji war dox ci diggante noiro ak américain ñaari mbër yaa ngi lewaatoo ña ngay jëm ci wetu saaka ya ñaari mbër yi ñi ngi lewaatoo ñu ngi jëm ci wetu saaka yi diggante américain ak noiro euh, arbitre bi sifflé na bu yàgg dóor amagul songo amagul caxabal amagul waaye daal ñaari mbër yi ñi ngi ci digg géew bi ña ngay lewaatoo diggante noiro ak américain jege nañ saako yi lool saako yi nag fekk jiwul kenn euh, yaakaar naa dañu koy fekki waaye daal lamb jàngook ci diggante noiro ak américain Euh, ñaari mbër ya ngay lewaatoo diggante noiro ak américain ñaari mbër yaa ngay lewaatoo euh, xaw na ñoo soxee nag seexu naa ñaari mbër yi dafa mel ni jegenteeguñ ba léegi euh, dóor amagul song amagul ndax mbir ya ca caxabal lay jeexee loola da ngeen ci xam lu leer ci kanam tuuti diggante noiro ak américain mm, ñaari mbër yaa ngay lewaatoo jege nañ saako yi lool noiro jege na saako yi <laughs> noiro jege na saako yi waaw Noiro jege na saako yi diggante Noiro ak américain ah lewato baa ngay gën di gaaw mbir yaa ngay gën di gaaw ndax ah, ndax làmb fan lay mujjee mbir yaa ngay gën di gaaw en tout cas diggante Noiro ak ki nga xam ne moom moo di américain Seydina Aline Ndiaye Seydina Aline Walfadjiri nee na ma Noiro ak américain sorewuñ Ndiaye ma ne ko la Noiro ak américain moom sorewuñ xam naa ne waaye daal. ndax ndam li kan moo koy yóbbu ndax noiro moo koy yóbbu wala sax ndax américain mooy yóbbu li nga xam ne moo di ndam li ak lu mën di xew loolu moom ci kanam lañ ciy xam lu leer diggante noiro ak américain euh, lambu jaa ngi noonu ñaari mbër nag nee nañu tekk euh, stade bi nee nañu tekk ku ci nekk di xool euh, fan la lamb ji di mujjee wala sax ku ci nekk di xool ñi nga xam ne ñoom nga àndal naka la ñuy def ba xam dañuy yóbbu ndam li wala dañuy lëng mu ñibbi loolee ci kanam tuuti daal bu soobee yàlla dana leer ñaari mbër yi daal ku nekk nee dekk di déglu sa morom waaw noiro américain ku ci nekk nee nga tekk xëy na nag mën naa am loole lu ñu leen digal la ñoom ñaari mbër yi waaye daal lamb ji dafay lamb ji am solo joo xam ne xëy na ku ci nekk doo ko foyee ku ci nekk da koy waajal ku ci nekk da bëgg yu bale ndam looloo tax diggante noiro ak américain nekkul combat boo xam ne dafa war a mën dóor mu daanu wala mu gaaw loolu tax ku ci nekk ah, dañoo nekk ci ay calcul technique day nekk ci ay calcul technique ba xam ñoom kan moo ci yóbbu ndam li noiru américain wallaay loolu balaa yàgg na ci am am lu leer ndax boo xoolee nag dafa mel ni ñaari mbër yi sax dañoo xaw a tolloo ñaari mbër yi xam naa li ñu ëppante bu fekkee am na bariwul diggante noiro ak américain moo loolu rek mooy wane ne làmb ja xëy na yaakaar nañu ne du yomb làmb ja du yomb diggante noiro ak américain ñaari mbër ma ngay wàcc américain ngay wàcc ca suuf ma ngay wàcc ca suuf américain ngay wàcc diggante noiro ak américain ma ngay wàcc voilà lamb jaangoog euh, ci diggante noiro ak américain ci ci stade Nelson Mandela bu Mbacké Fallou Diop Madakaw merci beaucoup encore une fois Fallou Diop Madakaw jeunesse bi nga xam na ñoo bëgg lamb jeunesse bi nga xam ne ñoom ñoo bëgg sport tey ñëw fekk si nga xam ne moo di Fallou Diop Madakaw mu nekk lu am solo gis nañ fi kilifa gu nekk diggante nag noiro ak américain ñaari mbër yi ña ngay lewaatoo ñaari Mor Mbaye Cissé bàyyi ma may ma ñaari mbër yaa ngay lewaatoo Mor Mbaye Cissé suuf su a bàyyi leen ma ñaari mbër yaa ngay lewaatoo tout cas ñaari mbër yi ñu ngay lewaatoo ci diggante noiro ak américain ña ngay gën di jege ñaari mbër yaa ngay gën di jege. ñaari mbër yi ñi ngi gën di jegeente waaye ba léegi man li ma jaaxal mooy dóor daa amagul waa songu amagul ana songu waa ana dóor ana caxabal ah dafa mel dañoo ragalante ak lu mel a xel gisuñu songu gisuñu dóor gisuñu caxabal gisuñu xattar bi gisuñu nooju ndax loolee dina am tey sax ci làmb ji waaye daal ak lu man di xew daal ah Noiro daal cokkaas na Noiro cokkaas na ah américain cokaas na kon boobu <laughs> ah, communicateur traditionnel maa ngi may jumloo ah, bi am euh, américain noiro ñaari mbër ah ah ah diggante noiro américain ña ngay accéléré mbir yaa ngay gaaw américain noiro ah américain noiro ah coup boobu dal noiro Waalo door na ah jàppal na ni ñaari mbër ya jàppante nañ ji jege nañu saako ya diggante noiro ak américain saako ya ñaari mbër yaa ngi saako yi diggante américain noiro dóor bi dal na jàmbu jaa ngay na diggante noiro ak ki nga xam ne moom moo di américain làmb ja ñoom ñaar ña ngay doxal ñoom ñaar ña ngay dem jàppante nañu noiro am na ngemb américain am na ngemb loolu dëgg la billaay dëgg la ma ngay dóor américain ngay dóor dóor génn nañ saako ya ñaar mbëri génn nañ saako ya jaa ah ah dafa kaawoo de dafa kaawoo de tudd na de oh la la ndax lamb ju du yàqu ndax lamb ju du yàqu tëdd ma nga tëdd ma nga tëdd ma nga tëdd li xew lu doon soxna lu ñu jaajëf Ardo am na liggéey. Thank you. maa moom ñu xeex jàppante mu kor ma ma kor ko dóor ko mu siggi yaa ngi dégg ma jël ko mu génn ma siggil ko dóor ko dóor dóor ko ñu daw génn mu daw génn bi ñuy daw di génn ma ma dugal ko kuu arbitre bi soufflé bi jox ko mën na sama a yàqoon noonu. may dikk coup bi est-ce que du après coup non non avant tout muy soufflé dugal na moom arbitre bi soufflé na te teewul man dugal na ma ko ma continuer man xeex parce que loolu moo ñu ko wax. bu fekkee ne amatul yàlla bu ma yàlla bu ma amati ndam. non man damaa am mbooloo gis na li ma fi indi moom wu fi sax benn kaar ñaari biis laa fi indi samay supporter ña ngi ne ñu sonn attends yaa ngi dégg ñu wàcc suñu combat ay weer ñëw ñu ne koy yàqal saa ay une minute yaa ngi dégg fii nag man garaawut amul problème man mën naa ne sax méttu ma mais li nga xamante moom ma métti mooy samay supporter ak combat bi ni nga ko waajee fii am naa fi ndam lu nekk sama siis laa fi teg daanu musuma fee daan benn gars laa fi daan bil désert laa fi daan may ko ramas moo ma fi daan may ma ramas ma ma wëlbati ko daan ko à part ça loolu Gris Bordeaux mu daan ma ma daan ko keneen ku dul moom laala lu ma fi suus man la noiro métti na ma trop nag di jégalu samay supporter nag di wax ni combat bi yëpp gis ngeen ni ko ni mu demee maa nag bu wér a wér xam ni maanaam mooy loolu noonu daal sama xol fees na trop mënu maa wëlbati ko di wax di sant nag ñu ma jàppale ñëpp ñëpp waa équipe bi ñoom digal ah di sant ñëpp ñoom sàmm suñ ma sàmm nduur di sant ñëpp daal bàyyiwuma kenn di sant sama waa kon di sant Cheikh Abdou Karim Mbacke bu baax a a baax di sant suñu may sax parce que dafa sonn ci combat bi jàpp ci loolu lool di sant ñëpp di gërëm di jégalu ñëpp. lan lan ngay wax ci waaw sant yàlla parce que affaire bi gënaluma su ma ko ñëw nañuy daan ko ci bëre mais yàlla dina ko dogale parce que man ak moom lu ma 10 ans ñu wax suñu combat mënul taxaw kon war na taxaw tey ñu leeral affaire a leer mu may door loolu mooy loolu sant yàlla baax a baax a baax di sant nag Tidiane Ndiaye sama coach maa ngi koy sant bu wér a wér Tafa Ndiaye doomu Mbacke boo ñaaw maa ngi sant ñëpp sant sama waa koñ ñëpp boobu cas ki bàyyi liggéeyam ñëw Moussa Pouy waa Korgol yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Mbacke Bawol gépp école yi Ndiogo ja bàyyi ma kenn maa ngi sant ñëpp jërëjëf. jërëjëf Anta ñu bàyyi euh, Kéba Kanté mu jox ko bi Kéba Kanté drapeau nag mënut a yomb xamoon naa ni euh, nii euh, bi Amérique jël na ko fii si Mbacke Bawol Kéba Kanté mi nga xam ne nee na maay taalibe Cheikh Kanté muy docteur ah Cheikh Kanté di sama papa di Baye Fall nga xam ne moo di président Macky Sall kon nag mbokk yi lii lañ leen jëlale woon fii si Mbacke Bawol di leen jox rendez i te ay champion yu mag lañ fi nekk tey jii na nit ñi gëm ne bëree ñëpp ay doomi département bi lañ Madakaw nag gis nañ ne lamb ji ñu ngi jël suñu loxo di ko def leen di tour organiser ay journée open national lu nekk ñu di ko def xale yi ñoo defoon délégation ñëw ci ñun nañ buñ sañoon activité yi Madakaw di def ci jeunesse ñu dañu ci boole ñu ne leen incha allahu rabbi danañ leen di tëggal ay journée yu mag tey jii ñu demoon seeti suñu xarit suñu lépp Kéba Kanté bi ñu demee seeti ko na koy da nga am benn journée boo xam ne dañ koy tëgg ca Mbàkke Bawol muy journée boo xamante ne si ne grande ligue la bu mag ñaari champion di ko bëre te Kéba xel xalaat nañ ba sonn ci Sénégal gépp waaye yow la ñu daj nee moom mii ci côté semence bi li nga xam ne dañ koy joxe ci engrais fii ci département de Mbacké lépp ci loxoom lay jaar di ñëw bépp engrais boo xamante dikk ci ñun ñii ñoo koy séddale fii biñ gisee ne ab jeune la nag boo xam ne jeune bu talent la te politique bi muy def mooy développement social Madaka objectif am mooy développement social ñu dem ba Fatick seeti ko waxtaan ak moom ne ko nag bu ñu sañoon suñ journée bi dañ la ko nangul ñu ko lam diglante ndax lépp Fatick Cheikh ko yor te moom mi lépp Cheikh parce que ci politique ci loxoom la nekk ku ne xam na président daf doon ñëw Fatick tey waaye daf na ma fàll lu mu xat xat xat bés du tuut borom lay tollool te bés bii ngeen ma tudd réy ci sama jëmm incha allahu rabbi dinaa dikk ñu di ko féliciter moom it di ko ñaanal di ko wax ne Madakaw yëg na ci boppam te kontaan tey jiit li nga xamante si ne am na tey suñu xol sedd na

ñu bëgg-bëgg mooy dañu am candidat muy son excellence président Macky Sall muy candidat boo xamante ne si ne waxuma li mu def ci réew mi rek. président Macky Sall mais li nga xam ne def na ko ci département de Mbacké ñu mën cee teg loxo benn président mosu ko def ci Sénégal dama jàpp ne président Macky Sall 24 bu résultat yi génne ci département bu ci Sénégal gépp département de Mbacké ñoo ko war fal ndax de bi mu fiy ñëw man su daan jógee Touba di dem Dakar dinaa def 5 heures de temps 6 heures de temps moo ñu andil autoroute à la te nit ñi nañu fàttaliku ne ko neexoon yóbbu ko xam na ne lu wër jumaay Touba ba ñaari étage daf daan taa ak ndox mu dul jeex président Macky Sall moo fi jëlee bourse sécurité des familiales soixante mille familles ñoo ci bénéficié wu ci département de Mbacké bi mu ñëwee gis na ne màggal li nga xam ne dañuy ñëw ci rond-point bi Daaru Manaan di dem Ndindi day xat-xataay boo xamante ni seen dana dama koy def deux voies deux voies def ko Ndindi

lépp jeex ñu ngi sant na Kéba moom bu baax a baax mention spéciale. ça je pense que finalité bi combat bi am yaakaar naa ni man am naa satisfaction parce que tey ñaan naa yàlla après élection yi suñuy feete victoire du président ñu organiser waat le même combat defee ko fii maye fi après concert loolu suma yéene la te incha allah dinaa si waxtaan ak euh, suma xarit leneen li si topp mooy euh, làmb warta yam dakaar kese ndax tey dëkk boo dem am na ay champion tey soo demee suma dëkk muy Fatick muy Louga muy euh, Mbacke bii nga xamante ne tey suma sama dëkk la parce sama soxna fii la dëkk donc gis nañ fi ay champion yoo xamante ne parce que ñi ma fi gis léegi bi ñu simmee ko dama ne man xawmoon ne région yi am na ay poids lourds dafa war a gën a tax rek muy CNG muy CRG aussi jéem a xool nu ñuy encadré ñoom fàllu ak ñeneen ñuy gën a organiser ay combat làmb yi di gën a di gën a développé si biir région yi pour que mbër yi fi nekk di mën a ñëw dakaar di compétir parce que cachet cent millions yi ak cinquante millions yi warta yam dakaaru kese war na ñëw ba si biir euh, région yi euh, asamalaak euh, sama dëkk laay jëkke nag muy Louga après ñu soog a xool ay Mbàkke ak Fatick li si topp bilan président yaakaar naa man dama am habitude di wax ni du ma si nekk di ko wax parce que du lu ñuy laajte lu ñu gis la lu ñuy daj chaque jour di ko xool la kon ñu si nekk di polémiquer di si expliquer parce que ñun xam nañ en am et en conscience que sénégalais yi xam nañ li fi président def li si topp rek mooy ñaan yàlla le 24 février nit ñi teel a dem si urne yi voté ñëwaat seen kër toog 4 heures ñu ne vive Macky gagné na ñu demaat seeti leneen di wax opposition bi aussi ne nañ bàyyi ñuy def parce que tey ab réew mënoo fee nekk. di jël tey ay yàq der ak ay sos di ko teg ci kaw njiitum réew nit ñi nañu delloo ci seen xel xam ne ka nga xamante ni jiite woo daayira jiite woo leneen bëgg ñëw di laaj réew mi yaakaar naa ni ay caaxaan nga nekk te dañuy faral di wax naan kuy bañ tubéy doo bëgg taraxlaayu mënoo ne nag danga nekk ci système dund ci système màgg ci système ba système may la li mu lay may ngay lal ay njuuj njaaj affaire yi xaw a cóol nga bëgg a wëlbatiku di jàpp état bi di yàq seen der pour bëgg sénégalais yi bañ leen a votel pour votel la pour mën laa teg si kaw ngay mën a dawal say njuuj njaaj loolu man de en tant que jeune du ma ko nangu maa ngi woo massivement la jeunesse sénégalaise le 24 février ñu jël seeni carte dem si urne yi falaat le président de la république ma ànd seeg sama kilifa sama sëriñ muy la docteur Cheikh Kanté maa ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp wasalaam